dama leen koo waatal te yàllaa ma ci may mbir ma ba mu demee noonu ma toog nelawuma ma ne Mollah mii de taxul ma xam ko bu baax de waaye nee nañ li muy wax de li ci ëpp dëgg la tey it ma jàppoon ne moom de xanaa ak lim sonn ci Sonko lii am na fu ko teg ma jaaxle lool tey laa ci mas a wax man usmaan Sonko mm-hmm. bu paasee woy juram mën naa ne wi ko sukk jur waxuma la ay waxi politique man maa ko jàppal sama bopp tey maa ko bëggal sama bopp xam nga lu tax. damaa gis li ko Sénégal jaral ci bakkanam ak ci liggéeyam ak ci nekk ab patriote ba lépp jàllee ma gis diine ji nga xam ne da koo dund di nit ku am diine di nitu alxuraan waaye tey boo nee Ousmane Sonko de ñu ngi ñaan yàlla aw yaramam mu gën a woyof. ku toog ñu jox la kaamil nga mën a wat ne kenn jugul ci Ousmane Sonko baatin kenn mënu koo wat. mais kenn mënu koo waat. Euh, loolu laa bëgg fàttali. oh euh, je rappelle plus de. Euh, nañ ma baal de mais tey lu baree baree baree baree baree danaa leen ko wax te jox leen yi ay mbir yoo xam ne danañ ca yegg nañ ba xelu Sénégalais yi ñuy fawe Sénégalais yi delloo si waat leen seen xel ngeen xam ne ñi leen di wax ay mbir musiba buy ñëw nañ alerte suñu fànq musiba mi. te maa ngi tàllal sama loxo képp kuy nit le 17 ku naan leen ay chiffre huit la ak loolu lépp amu ci solo sax donte chiffre sept la man li ma liggéey ba talsam ko waaye dafa diis ci Ousmane Sonko képp ku ko man na ngay def basmala 313 bismillahi rahmaani rahim 313 ginnaawug naafi la nga toog def ko ak boo jógee fajar ñaan la 17 bi suñ boroom. fànq lépp luy lor ak luy gaañ ci Ousmane Sonko ba mu rëcc ci bis boobu man loolu laay ñaan. mu rëcc ci bis boobu yàlla na ci rëcc. mais mosoo ñaan lii ci ci jàll ñun ñi gën moom laay moom laa bëgg man te ci laa xar sama tànk tubay mais ñun yi gënoon a jàll te bés bi damaa bëgg yàlla buñ ci def bu fekkee man yàlla may na ma dara damay ñaan yàlla bu buñ ci jël benn décision loolu laa bëgg man bu ko jàllee ñoom ñu doog a def leneen yi jàll lu tax waxoo ñu loolu moo mais déedéet ñaan a ngi doog jot yi jàll maay doogo a ñaan maa bañ man man dama ne la senegal bu doon benn bakk na fi des ma faatu Ousmane Sonko dañ koo bëgg a yàqal ci pexe te duñ ko nangu Ousmane Sonko dañ koo bëgg a yàqal ci pexe te du ma ko te Sénégalais yi gëm naa ne duñ ko nangu sëñ bi réew mi ñoo ko moom nañu def attention te xam fi ñu teg suñu tànk xam fi ñu jëm te bañ a réeral nit ñi nag surtout te xam nga beneen mbir. Mm. fi ne lu baree mi ngi daw di jëw te ay dat la ak ay app yoo xam ne Ousmane Sonko dañ ko ci lalal ay ndëgg sërëx te jàpp nañ ne ku ko def di nga mucc te billaahi wallaahi tallaahi képp ku bëgg réew mi ñu gëm loola loolu boo tëddee waroo nelaw waaw moo tax képp kuy boroom kurus 313 basmala yi nañ ko def ñaan yàlla suñ boroom bis ba fomm bu ci benn siis jël benn décision maa ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanal képp ki nga xam ne yéen a ngi Ousmane Sonko jàmm. mais mais parce que sëñ Mara aussi li nga wax bu fekkee ne. jugé woon nañu ba pare ne dañoo amande quand même deux cent millions. Mhm. demaat ba mu yàgg ñu ne dañu def appel. Euh, Mame Mbaye Niang dafa bëgg ñu yokk deux cent millions yi wala quand même. Euh, dama ne woon xale bu ndaw bi nga xam ne dafa dem ci duus bi. xale bi. na ko yaay kaay sang ma xale sax bu am jom bu xawee dëgër mën naa sang boppam na ko yaay kaay sang ma ba yaay sang la ba nga set solo lay yére na la demal set nga wicc te yow set rek nga bëggoon ngay jooy. nan ko yaay kaay sang ma di wër fépp bu la yaay sangee ba noppi sa yaay génne la nga dem ba ca bitti di fecc dawaat dugg ci biir duus bi. xamal ne naroo sangu da ngay puub sangu taxutu laa jóg waxuma nag damay set nañ ma setal ñu setal la nga ne setoo am na leneen nar am na nar ngay pexe man duma wax lu dul dëgg te barke yonenti yàlla Muhammad barke yonenti yàlla Muhammad Ousmane Sonko bis bu Sénégalais yi jugul farlu farlu dëgg dëgg dëgg mën a jàpp ci loxoom ba ci biir pale bi man xam nga tey bu ma gisul woon Sonko ci biir pale bi xam nga ne du ci sonn. ah bon ah waaw ñàkkuma fu la nag barke alxuraanu karim bu ma gisul woon Ousmane Sonko ci pale bi duma ci sonn te palu Ousmane Sonko man euh, maar ñu naw ñu bari ngay gis nii est-ce xam nga benn mbir. Mhm. ñoom ñoom barki démb lañ xam Sonko. xam nga ne balaa ñu euh, couvre-feu wala dara di am Sénégal. Mhm. man yàlla may na ma. ma njëkk a gis Ousmane Sonko jafe-jafeem yii sénégalais yépp laay jël témoin ak man mii kay wallaahi alxasim ma gis ne danañ ko téye sénégalais yee ko defalaat seen bopp vidéo woowu tey mi ngi ci ay millions million mën na leen ñi ngi yi tànkam te danañ ko fexeel waaye bu duggee ba génn lu mu wax mu saf ñépp waaye tamit sénégalais yi nañ waxante dëgg yéen. mais ci lañ la njëkkoon a attaqué de. ne la du dugg. bu dee ñaari fan sax ñu garde à ko ba tey moo koy bari lu ko téye tey sénégalais yu bari fa lañ ko ràññee ba mu jógee ci lañ ko topp. c'est problème mooy da nga doon ñëw rek di ñu wax lu neex Ousmane Sonko <laughs> franchement. kontaan ñëpp dañu doon kontaan ci. patriote yi nag tey lañ war a gën a kontaan ñii patriote nag laa waxuma ñi nga xam ne dañoo soxor ay xol yu bon lañ yor man sëñ bi buñ doon buñ doon dugg ci Sénégal di rendi patriote man nii la ñuy dagg sama bopp suul ko ci biir pale bi. bu ñu doon laajte benn bopp patriote lañ soxla bu kenn wër kenn ñëw leen te aw ma carte Pastef man aw ma kartu maam mbur bokkuma Pastef. da ngaa bëgg Ousmane moo tax ma def alerte ne yàlla damay ñaan yàlla man waxuma ne xam nga néewuma man Ousmane Sonko la nangam dañ koy def nangam. Mhm. dama ne la. da joxe alerte. jógoo ngi doo ko jot. nañ jóg ci ay ñaan le 17 chiffre 7 la bi bokku ci même booy tànn soxna boo dalee ci 1. dañ naan la baaxut sëy bi àndul masalan ci ëpp ñiy wàllu ci xel nu joom xam nañ li may wax set bi mooy peese ñaan man na lu ne waaye du tax mu def lu ne te barke yonent yàlla Muhammad maa ngi lancé appel lii direct Ousmane sonkoo laa koy wax ñu nekk ci biir ne dañuy wax ngir sonkoo nañuy fexe même bu nit bonee nekk ci àll ba wala ngay contre sonkoo nañ ko dugal ci biir yëf yi ak liggéey bi te bañ ñi nekk ci liggéey bi ñu leen di jéem a teg dara wala ñu leen di wax dara loo xam ne day jóge ci ñoom te ñoom lu ñu ñàkk Ousmane sonkoo tax waaye Ousmane Sonko yi taxul réew mee tax maa ngi lay waatal ci Serigne Saliou mi nga xam ne gëw ma kudul moom procès bii nga xam ne mooy suqalim réew mi ba suñu mbokk yi ci diaspora bi ñibbisi ci réew mi man man li ma gis buñ ko gisoon man li ma gis buñ ko gisoon. kon mbir mi passé na fii mais sénégalais xam nga lu muy bëgg nga koy wax waaw yow de oto bu rafet a ngi nii taxaw waaw yow da li nekk sa yaram bi alhamdulilah. yow de sa mbir dina yëkkatiku yow de li ma gis ci yow ku leen di kàcc génn bëgg te duma ci bokk man bokkuma ci loolu te duñ ma masa dugal ci euh, euh, pièces yooyu duma ci daanu. loo gis moom ngay wax lu ma lu ma gis laay wax xam nga tamit waatuma na li ma gis léppay am. man du ma yàlla de. waaye li nga gis rek ngay wax. mais li ma gis rek laay wax c'est simple yow ñaara am kay gëmal waaye da ngay bind nga denc ko bis dana ñëw da nga ne lii. mais boo gisee lu xam nga bu ñu jógee ci procès ba. Mm. may ñaan yàlla ñu dàq ko wala ñu aj ko bañ cee jël benn décision. loolu ngay ñaan loolu laay ñaan dina toog ne alhamdulilahi rabbil alamin. mais quand même di nga seetaat ba gis ay sarax yu mën a fànq. ba mm. procès bi bañ am wala même bu amee juge yi quand xam nga waaw nga ne même bu amee. juge yi jël décision bu baax <laughs> ay xam nga xam nga xam nga xam nga Ousmane Sonko dafa nekk nit koo xam ne suñ borom dañu koo indil waaye ñun xamuñu ko ba tey dijje baa xam nga benn mbir Ousmane Sonko ci boppam bis bu Sénégal taxawoon dijje nag nañ am ñu ñetu ñun jot a jël man leen a seetal man na cee baax nañ jël ay quelques personnes seetal leen ñu woote ci numéro baar bi ci suuf ñu seetal leen da ciy baax may leen seeni sarax dafa am loo xam ne bu ko nit ñi xamoon danañ teey bu baax. xam nga ci lan. li ñu njëkk a teeye mooy. Sonko dafa nekk nit koo xam ne lu bari luy ñëw ci moom. moom da koy gis wala da koy yëkk waaye xam nga beneen mbir. lu bari loo xam ne day am moo tax nit ku gëm yàlla la te nit ku ragal yàlla la. te Ousmane Sonko nit la koo xam ne lii maa la ko wax bindal denc te danañ ci yegg. du nit kuy toppanteeg nit te du nit kuy fayantoog nit te jikko ji nag booy ànd ak nit ba procès doy la yow jikko yi dañ cee war a dox baa xam nga ne man ñu bari la tax ma woo leen na leen kii de dal na sama xel xam nga lu tax damaa dem ba seet mbiram doog cee dugg. danga ko seet ba waaw. ah bon waaw. billaahi wallaahi watallaahi. Ousmane sonkoo du war senegale yi billaahi wallaahi wa tallaahi Ousmane Sonko du war Sénégalais yi du leen war ci kàddu du leen war ci jëf man sëñ saali woo ma yar yaaram man du ma wax loo xam ne dama koy def sama nafsu bakkan billaahi wa rabbul kahbatu musarraf Ousmane Sonko du war benn senegale fii te xam nga beneen mbir bu ci topp mm-hmm. dama ne bu ñu falee Ousmane Sonko masalan ba mu def fi fukki at sénégalais yi dinañ génn na ko nii nga ñu defal suñu réew mi doy na doy nañu continuer man seex bi damay damay seet léeg-léeg di dugg ci ruq yoo xam ne ci mbir daf damay xaw a tiit waaye nag comme ni ma mën a gisee ñëw pelanti bakkan yi ci topp